alaikum, bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien. Ici ngi la spécialiste dans l'investissement immobilier au Sénégal et dans cette chaîne on parle d'achat et de vente de terrain on parle de construction on parle aménagement d'intérieur bref tout ce qui peut vous faire réussir votre investissement immobilier que chaîne Group et sur toutes les plateformes digitales de Toumaï. alors une séance de vidéo on va vous expliquer l'état de nos coopératives fan lañ toll ci suñu coopérative yi fan la sen acte administratif yi toll manam sen papier kër yi fan la toll ak ñun ak quelques-uns yi nga xamantene ne jotaguñu seen acte administratif qu'est-ce qui se passe voilà bref on va faire une petite vidéo sur ça la deuxième vidéo va tourner autour du contexte foncier du Sénégal lan mo xew en réalité Sénégal certains lotissements sont suspendus hein pourquoi il y a des arrestations par-ci par-là hmm? Pourquoi aussi il y a des arrêts de construction sur certains endroits au Sénégal Donc ça, c'est la deuxième vidéo. Et enfin, la troisième vidéo, il y a une question qui revient très souvent et c'est lié au contexte foncier au Sénégal, madame. Tchoui, foncier bi lotissement yi nga xamante dañ ko y a une question yoo poser en inbox et j'ai essayé de regrouper ces questions là pour que nous puissions faire def ci vidéo mais ce que j'ai remarqué c'est que ça tourne autour de bien question Moi, nit ni dañuy naan ay man terrain bi ñu ma joxoon mbaa duñ ko nanguwaat dama terrain sangam dama amoon tool sangam mbaa duñ ko donc on va parler de ça et je vais vous expliquer dans quelles conditions on peut retirer votre terrain c'est-à-dire quand ak naka vous pouvez prendre le terrain que vous affecté légalement alors sans plus tarder dañuy attaquer première vidéo bi bi nga xamante ci la coopérative ainsi que papier yi fan lañ hein, est-ce que tous les actes administratifs sont sortis voilà donc coopérative ou Group comme vous le savez les quatre phases de l'année passée yep sont na euh, ba ñu relancé waatoon ci année deux 2024. vous savez que chaque acte dañuy def ay coopératives donc les coopératives sont toujours en cours bi nga xamante ne moom moo xawoon am tuuti retard par rapport aux démarches mais alhamdulilah euh, xam naa ne dootul yàggati xam ngeen ne aspect administratif Sénégal c'est un peu compliqué ça prend énormément de temps mais bon na baax rek donc euh, c'est ça l'essentiel c'est que papier yi bu ñuy génn ñu nekk papier normal te ndaayaan vous savez que c'est un titre foncier global acte yi génn receveur de domaine moo koy voilà donc plan bi moo nekk c'est les esquisses Le hein. euh, plan bi moo nekk avec tous les numéros le lotissement c'est Ndayane résidence diane résidence tout voilà donc euh, on est à certains réglages mais dootul yàggati incha allah rabbi ñu def fait ay vidéo pour commencer euh, la commercialisation des parcelles du lotissement de Diane résidence ak acte administratif hein, papier parce que euh, xam ngeen papiers, papier daanaka li ci génn et je vais vous expliquer pourquoi ça mu am yoo xam ne donc donc y avait quatre phases gis nga Baraka City bi un acte administratif acte administratif Kawsara ñoo nekk nii ba tey bon les gens ils viennent ah ñi nga xamante ne ñoo fi am seen acte on avait informé par message ainsi que par appel ñi nga xamante ne seen acte génn na ñoom ñëpp mais bon puisque du ñàkk mu am ñoo xam ne gisuñu appel yi dina ñàkk peut-être ñoo xamante ne gisuñu message yi c'est pourquoi je fais cette vidéo pour que ñu mën a ñëw jël acte yi donc euh, daanaka coopérative Baraka City bi moom des na yoo xamante ne génnul mais Kawsara bi yëpp génn na donc euh, les actes administratifs sont là gis ngeen li yëpp ay actes administratifs la jal bi ngeen gis te nag am na ñoo xam ne jël si nañ seen acte quand même beaucoup même sont passés au bureau pour récupérer leurs actes mais des na ba tey acte administratif yi comme c'est comme ça que ça se présente voilà bii mooy Kawsara moo nekkoon deuxième phase bi troisième phase bi mooy Firdaws tamit génn nañ Firdaws voilà bii mooy coopérative Firdaws ñoom tam seen acte administratif mi ngi ni

suñ ko képp ku xàmmee coopérative bu mu rek j'ai déjà énuméré toutes les coopératives ñu mën a ñëw jël seen acte yi seen acte ñoo nekk ni am pagay dimbale leen ñu rek ngeen ñëw jëssi si seen papier donc bi Kër Waali la Kër Waali moom won woon bëriwul woon déjà seen acte ñom tam ñoo nekk ni seen acte administratif ñoo nekk ni donc vous voyez que acte am nañ différence euh, sur la présentation je vais vous expliquer brièvement am ngeen acte bi ak acte bi après na ni nga xamante ne noonu lañ euh, après nga photo ko Alex wute présentation bi bu acte administratif Malikunda nii la doon génne gis ngeen li coopérative euh, Malicounda Moubarak bi la mooy premier bi moo tax acte yi nii lañ génne entre temps les actes ont été changés c'est-à-dire sur la présentation parce que maintenant c'est des actes numériques et tout est dactylographié pour plus de sécurité donc euh, lii benn original dong moo ci mën a circuler c'est tellement sécurisé au niveau du fichier foofu noonu ci commission manière à ce que ñaari actes originaux ñoo circuler bu il y avait quelques couacs comme ça c'était écrit au stylo hein, des fois non am changement ci bind bi mais avec le nouveau sous-préfet bi ñëw dafa signer des actes comme ça et c'est normal parce que actes yu écrits c'est écrit avec un stylo dina mën nit na quelques modifications mais téwul c'est des actes qui sont bons mais y moo ëpp sécurité moo les actes se présentent comme ça même entre temps gis nga au cours du changement de ces actes là amoon a tout retard parce qu'il fallait qu'on pense à une nouvelle présentation xool logiciel yi xool euh, machine, voilà donc occasionné woon c'est-à-dire que indi woon na retard ci actes yi ci jamono boobu mais alhamdulilah actes yi ñëw na gis ngeen coopérative bi nu mu bëree ay actes du coup aussi au niveau de malikuna comme acte dañoo bari papier dañoo bari des fois nous dañu recevoir ño xamantene sen papier génn na mais fay am erreur par exemple mën na une erreur sur le nom donc nous ñun obligés de reprendre encore le circuit moy waral déjà parfois acte administratif yéex fay génn ba ñu recevoir ko mais fay am erreur sur le nom wala mo am erreur sur la pièce d'identité ou le passeport wala mo am erreur sur la date de naissance parce que nous sommes très très très regardants par rapport à tout ce qui est écrit sur l'acte parfois aussi dañuy joom ci li nga xamantene moy lotissement yi des fois ñu def taaxum au lieu de taaxum extension tout ça ça peut arriver moo waral parfois acte day ñëw mais dañ koy retourner mu defaat circuit moo tax des fois mu jëlaat temps parce que am nañ ci benn cas boo xamante ne actam wax dafa yàlla def na deux ans deux ans actam def na ko parce que actam bi mu njëkkee ñëw c'est déjà enregistré à la mairie bi mu njëkkee ñëw dafa ñëw mais euh, y avait juste la signature du sous-préfet mais y avait pas le cachet est-ce que comprendre ngeen c'est-à-dire que comme dafay bari moom day signer jox secrétaire am mu cachet donc mon signature bi ñëwoon na mais avait pas le cachet donc cet acte n'est pas bon léegi nag ñu ko malheureusement il y a eu un changement de sous-préfet entre temps et le nouveau sous-préfet bi mu def na quatre mois yoo xam ne signé wul léegi bi mu ñëwee ñu commencé reprendre acte bi mu a eu donc des cas comme ça ça peut arriver donc parfois le client ne comprend pas day ñëw peut-être il se passe quelque chose avec son papier mais li ñuy daj ci terrain bi le rek nous xam mais dafay baax nag ñuy expliquer client yi nga voilà ce qui se passe sur le terrain papier yi day jaxasoo day ñëwee noo xamante ne doo ko mën a présenter client bi mais da nga ko koy expliquer quand même ne que papier bi ñëw na mais c'est comme ça que ça s'est présenté da nga koy retourner pour que ñu mën a def le bon acte pour que mu mën a am forme bi nga xamante ne moom la war a am voilà donc euh, su ma résumé li nga xamante ne mooy vidéo bi c'est pour dire que acte yi coopérative bu daaw yi génn nañ am na ci ñoo xamante ne aussi ñëwagul parce que am na ñoo xam ne dañoo ñëw am erreur ñu delloo ko actuellement ñu ngi def phase day day jaaraat fi nga xamante ne foofu lay jaaraat yëpp mooy day demaat ci maire après demaat sous préfet looloo tax yooyu génn mais yi nga xamante ne génn nañ ñoom seen borom informé nañ leen donc je profite de cette vidéo aussi pour ñoom ñëpp ñu xam ne la plupart des actions sont sorties pour que ñu ñëw mën récupérer seen acte yi wala ñu mën a yónnee parce que la plupart ne sont pas là mais bu ñu yónnee seen mbokk dañ koy jox acte bi après mu décharger ñu voilà comme ça au moins ku nekk mën a jël sa papier parce que denc papier surtout original dafa xaw a métti voilà, donc Lola au cours de cette vidéo. Ne ratez pas les autres vidéos parce qu'on va parler du contexte immobilier actuel. li nga xam ne moom moo xew ak coow li nga xamante ne moo suspension de lotissement yi yenn yi nga xamante ne leen lotissement yi doxatul ak yi nga xam ne mooy arrêt de construction arrestation yooyu yëpp dinañ ko waxtaanee ci vidéo bi di ñëw dinaa leen expliquer ci nan ak naka lañ mën récupérer seen terrain yi